laqim lisaani waxlulan minhu luqad waj'alhu zakiran wa abad waj'al kalaami rashidan wa murshida wa fikrati arshida assalaamu aleykum wa taala wa barakatuhu ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaara suñu jataay yu xam-xam yi ni ànd ak yéen di fàttalente ak yéen téereb sëriñ bi radiallahu anhu bi nga xam ne moom la tudde Munawwiru Sudur te ñu tolloon ci ci suñu bind bi mujj ci bunt bi nga xam ne moom la sëriñ bi radiallahu anhu tudde albaabu thani fi tathiril qalbi wa jumlatil jawaarixi mooy buntu bi nga xam ne sëriñ baa ngi buntu bi nga xam ne ci lay leerale li ngay xam ne mooy setal xol moo koy sellal waaye it li nga xam ne mooy euh, moytuloo mboolem cër yépp ci bi ci ay bàkkaar wala ay ñawteef kon buntu boobu ci lañu nekkoon ñu taxawoon ci suñu bind bu mujj bi euh, fi nga xam ne foofu la sëriñ bi doon wax ne euh, fa aslih al qalba bila tadnisi hatta tura billahi za tanisi ñuy continuer ba rek sëriñ bi da fa kullu man képp koo xam ne raa gis al ahada kenn si wallahi kudud yàlla fii ayi shay'in ci mépp mbir mu man fa huwa kookee murtaddun aji euh, weddi jaxat aji wedd la itam murtaddun aji génn ci lislaam la al murtadd buñ ko waxee mooy koo xam ne dafa génn ci lislaam waaye jaxat ku weddi li nga xam ne mooy xéewal ko suñ borom bi subhaanahu wa taala defal la euh, sëriñ bi radiyallahu anhu nee na képp koo xam ne gis nga ci menn mbir lu dul yàlla maanaam di nga def lenn ba xool ci lu dul yàlla wala ngay def lenn ba cay séentu lu dul fay suñu borom bi subhaanahu sëriñ bi nee na kookoy na xam ne aji murtad la waaye na xam ne ku weddi li nga xam ne moom la ko suñu borom subhanahu wa taala defal ci ay xéewal la kon foofu sëriñ bi mi ngi fi soññ ci ixlaas bu baax a baax a baax muy di jëf waaye bu ñuy jëf ñu koy teg ci ak sellal waaye lépp loo xam ne moom ngay jëf nga jëf koté te jëmmi suñu borom subhanahu wa la rek tax mu ne fa kullu man képp ko nga xam ne ra'aahu gis nga ko moom suñu borom bi subhanahu wa taala fii kulli layaat ci lépp dara maanaam lépp lu mu di doon jaada kon mu tabe lahu ñeel ko moom moomee minhu ca mbiram bi afdali layaat ca mépp mbir mu mu man di doon ca jaguk mépp mbir mu mu man di doon waaye ngëneelu mbir mu mu doon képp koo xam ne daal euh, lépp looy gis loola lépp loo xam ne moom ngay taxaw di ko jëf suñu borom subhanahu wa taala rek nga cay xool nee na kookee na xam ne suñu borom dana ko tànnal ci ay mbiram la nga xam ne moo ca gën kon su fekkee ne bëgg nga suñu borom subhanahu wa tànnal la ci say mbir la gën na nga fexey ba lépp looy jëf na nga ca xool yàlla rek waaye bul ko def ngir euh, kenn kenn kenn na ko def te jëmmi suñu borom subhanahu wa taala rek tax moo tax mu ne fa kullu man képp koo xam ne ra'aahu euh, gis na ko moom suñu borom subhanahu wa fi fii kul fii kulli layaat ci léppi dara maanaam mépp mbir mu man di doon jaada kon mu tabe moom suñu borom loxoo ñeel ko minhu ca mbir moomee nga xam ne moom lay sàkku bi afdali ayaat ca la ca mbir ma moom la koy génneel daal ko koy jox kon loolu day tegtale am solo boo xam ne Eh, jël say mbir wekk ko suñu borom subhanahu wa taala am solo gi mu am solo waaye it eh, am solo gi mu am solo waaye jël sa mbir yëpp di ci geestu suñu borom subhanahu wa taala am solo gi mu am solo waaye bañ a bàyyi xel li nga xam ne mooy doomu aadama yi itam ci li nga xam ne moo dox sa diggante ak sa borom am solo gi mu am solo eh, mu teg ci faslun lii ab dog la fil qalbi jëm ci xol sëriñ bi radiyallahu anhu euh, dog bi mi ko jagleel ab xol te suñu bunt bu weesu wax nañ ci li nga xam ne mooy ab xol ak solo si nga xam ne am na ko kon sëriñ bi radiyallahu anhu jagleelaat ko fii benn euh, dog boo xam ne ci li jëm ci xol ak ni ñu ko war a laabale ak bakkaar yi nga xam ne moom lañ war a laabale ab xol loolu lañu ñu sëriñ bi radiyallahu anhu di leeral ci euh, buntu bi mu ne tahir na nga setal na nga setal fu adaka sab xol minar razaili ci ay ñaaw téef waxallihi te takkaayal ko bi afdalil fadaili ci ngën gi ngëneel yi sëriñ bi radiyallahu anhu nee na na nga seetal sab xol ci lépp loo xam ne ñaawteef la na nga fexey ba sab xol lépp loo xam ne mooy ñaawteef euh, lu ca mën a dugg di ko gàkkal na nga fexey ba seetal ci sab xol li nga xam ne moom nga ci war a setal nag ci ay ñaawteef dina la ko leeral ci bind yi ci kanam nee na soo ko seetalee ci ay ñaawteef ba pare na nga fexey ba lépp loo xam ne mooy gëneel lépp loo xam ne moo di ak baax lépp loo xam ne moo di jikko yu rafet na nga fexey ba jël ko takkaayal sa xol waaye lépp luy ñaawteef it na nga fexey ba mu sori la na nga fexey ba euh, set ci wicc na nga fexey ba génne ko ci li nga xam ne moo di sa xol mu ne wajtanib na teet alxasada kiñaan war riyaa ak ngistal wal kibra ak rëy wal xeqda ak kiñaan e, taxus kon da nga làq diya ak leer sëriñ bi radiallahu anhu ne na na nga moytandiku ci sab xol bàkkaar yi nga xam ne moom la lay limal bi ci jiitu mooy alxasad mooy ak soxor Euh, soxor nag doon loo xam ne suñu borom bi subhanahu wa taala sax bu ñu demee ci alquran ci ñaari saar yi nga xam ne ci la doomu aadama bi di ëpp lu muy musloo muy sooratul falaxi ak sooratul naasi euh, ba mu cay tudd tuddaale na ke ne euh, yow yonente bi na ñaan suñu borom bi subhanahu wa taala bu musal la ci ayu aji soxot ayu aji iñaan waaye iñaan ba pare di jëfee iña iñaanam nga mooy la muy wax naa wa min charri xaasidin isa xasad yàlla yal nag mu musal ci ayu aji soxot waaye ki nga xam ne dafa soxot ba pare di jëfe soxotam te jëme ko ci man yal nag ma ci musal kon loolu day tegtal ne soxot lu am la te it uh, luy dugg ci xolub doomu aadama bi la waaye nit ku ne war naa fexey ba suñu borom bi subhanahu wa taala uh, tàqale ko ak loolu waaye war naa def kem kàttanam ba Euh, même bu jikko bu mel noonu nekkee ci moom sax te euh, amu ci pexey euh, dogalu ko tey neexu ko na fexey ba bu ko jëfe ndax suñu borom subhanahu wa taala mi ngi waxaat ci alquran ba tey ne am yaxsuduuna annaasa ala ma ataahum llahu min fadli ndax da ngeen di soxore wala ngeen di iñaane nit ñi li nga xam ne yàlla moo leen ko defal ci ngëneel kon képp koo xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala defal ngëneel képp koo xam ne moom la suñu borom subhanahu wa may xéewal la ca gën mooy nga yéene ko ko te ñaan suñu borom subhanahu wa taala mi nga xam ne mook ko may mu may la la nga xam ne mooy moo bokk ca ngëneel yooye nga xam ne moom ngay sakku yonente bi sallallahu alayhi wa di wax ci xadis ne laa taxaasadu wala tanaajasu wala tabaaxadu wala tadaabaru wa kunu ibadallahi ixwaana xadis boobu li ñu ci gën a yittee rek mooy li yonente bi sallallahu alayhi di wax ne leen di soxorante bu leen di bañante waaye bu leen di soxorante bu leen di ginnaawalante bu leen di dummóoyonte waaye na ngeen nekk ay jaami yàlla waaye na nekk ay mbokk yoo xam ne mbokku lislaam moo leen boole ngeen war a dimbalante ci seen biir Eh, yonente bi saa sallam di waxaat ci xadis ba tey ne iyaakum wal xasada fa inna al xasada yakulu al xasanat kama takulu annaaru al aw qaala al usbu nee na maa ngi leen di moytandikuloo li nga xam ne de mooy kiñaan maa ngi leen di moytandikuloo li nga xam ne mooy soxot ndax soxot mooy jikko bi nga xam ne bu nekkee ci xolub doomu aadama bi day lekk jëf yu baax yi nga xam ne moom la doomu aadama bi di jëf comme ni nga xam ne sawara noonu lay lekke matt wala boo jëloon am ñax sànni ko ca na nga xam ne noonu lay lekke ñax ma ne na ak soxot bu nekk ci xolub jullit bi xolub doomu aadama bi noonu la mel lépp loo xam ne moom la jëf ci lu baax rek day mel ni euh, matt moo sànni ci sawara soxot ga day daal di lekk jëfam yu baax yooyu yépp yonente bi di waxaat ba tey ne laa yejtameon fii jaw fi abdin abdin al iman xolub jullit bi xolub doomu aadama bi xolub jaam bi ñaari mbir yi mënu cee daje muy gëm yàlla ak soxot ak iñaan ñaar yooyu dafa doon ñaari jikko yoo xam ne dañoo safaanoo ndax ku gëm yàlla xolam day sell xolam day naat xolam day féex lépp loo xam ne moom la ngi suñ boroom dogal ko daf daf cay ànd ak gëm-gëm euh, waaye du yéene euh, euh, mbokkum jullitam benn safaan kon loolooy tax mu wuute lool ak ki nga xam ne moo mooy aji soxot nga xam ne soxot moom du jikkooy jullit ab jullit waru koo jikkoowoo waaye jullit boo xam ne it jikkowoo nga ko war ngaa ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu musal la ba doo ko jëfe waaye mu musal la ba mu deñ ci e, sa xol soxor itam doon loo xam ne mën nañoo wax ne ay mbir dina ko andi e, nit ki saa boo xamee ne danga ko noonoo ak kiñaan mën naa dox seen diggante man nga koy iñaane nit ki itam saa boo xamee ne da ngay rëy rëylu fi wetam da ko koo bëgg a tiim da nga koo bëgg a bëgg di am lu mu amut saa boo xamee ne suñu borom subhanahu wa taala defal na ko dara loolee day mel ni day métti ci sa xol da nga ko koy soxore ngir ñàkk gi nga xam ne moom nga ko ñàkk amee bokk na ci li ko mën a andi ba tey tamit nit ki su fekkee ne dafa bëgg ji jiitu lépp lu am rek moom bu bëgg caa jiitu bëgg caa fës euh, su ko defee keneen koo xam ne moom lañ jiital bàyyi ko loola itam mën naa tax nit ki di soxore moroomum euh, doomu aadamaam waaye bëgg goo xam ne bëgg nga ko dara ji tamit mën naa tax euh, ngay soxore nit ki ngir ne loolu lépp saa boo ci bëggee dara te yàlla antalu ko keneen kam ko jox man nga mën naa tax Euh, loola mën naa tax nga nga nga noonoo ko waaye loola mën naa tax ak mbañeel dugg sa diggante ak moom waaye itam soxor euh, euh, mbir la moo xam ne itam ku ko def na nga xam ne mooy dogalub yàlla da ngaa mel ni ku ndax yàlla moom moo ne maa dogal ci jaam bi lii yow nga ne lii neexuma ba tax nga koy soxore bu boobaa loola itam na nga xam ne mën nga caa am mën nga caa am mbugalam suñu borom bi subhanahu wa ndax mi ngi mel ni yàlla dafa def mbir ba pare yow nga ne lii suñu borom subhanahu wa taala def euh, neexuma kon soxot jikko la boo xam ne bépp jullit war na koo moytandiku waaye képp koo xam ne itam tàbbi na ci sa xol war ngaa musal muslu ci jëfe euh, soxot googu nga xam ne moo tàbbi ci sa xol muy jikko joo xam ne nag ab julit waru koo jikkowoo ñaareel ba ci feebare xol yooyu mooy ngissal arriya arriya nag buñ ko waxee mbokk yi mooy ñàkk a sellal jëf rek ndax suñu borom subhanahu wa taala dafa bëgg doomu aadama bi di sellal lépp loo xam ne euh, daf koy jëf mu def ko te jëmmi yàlla rek tax waaye bu mu jëf genn jaamu yàlla di ko def di ci gissal li nga xam ne mooy nit ñi euh, loolu du jëfi di itam te saa boo xamee ne def nga ko day mel ni dangay ngay wutal yàlla ko koy booleel wala koo koy gam-gam leel su ko defee loolee man naa tax jëf yooye nga xam ne moom nga doon jëf te ak sell amu ca suñu borom jën lépp delloo la ko ndax mi ngi wax ci alquran ne yaa ayyuha allazina amanu di tubtilu sadaqaatikum bil manni wal aza kallazi yunfiqu maalahu a annas yéen ñi nga xam ne yéen a gëm suñu borom bi subhanahu taala bu di yàq sarax yi ngeen di def ci euh, di ko def ba pare di ko ñax di ko wax foo toll di wax li nga xam ne moom nga def ngir bëgg nit ñi di la màggal waaye ngir bëgg nit ñi jox la daraja waaye ngir bëgg nit ñi am fuñ la teg loolu rek nga ci jublu waaye wala nga koy def ba pare waaye def nga koy def de bëggoo lu dul nit ñi gis ko sant la ci tàgg la ci saa boo xamee ne nag lu mel noonu am na nga def ko te loolu mooy ci sob jubluwaay saa bu la nit ñi defee loolu ba pare nga jàpp ne suñu borom subhanahu wa taala bindal na la tuyaaba dencal la ko saa boo demee bu ëllëgee suñu borom subhanahu wa taala génneel la sa téere ne la sa téere yi nii nga xool jëf yu baax yi nga doon def gisoo ci dara boo laajee suñu borom subhanahu wa taala mu ne la bi ko doon jëf kat man taxuma woon demal ca ña nga xam ne ñoo taxoon nga koy jëf su ko defee ñu fay la jëf yooye nga xam ne moom nga doon jëf bu boobaa nag pertaa ngi daal di dikkal doomu aadama bi kon loolu moo tax nit ki war a bàyyi xel bu baax a baax di jëf di ci euh, wala ngay jëf di ci bàyyi xel nit ñi li ngay jëf dafa war a sell waaye boo koy def nga def ko te jëm ni suñu borom bi subhanahu wa taala rek a tax loolu mooy tax mu mën laa jariñ ëllëg yawmal xiyaam yonente bi di wax ci hadis ne qaala allahu tabaraka wa taala ana aghna shuraka'i an shirk man amila amalan ashraka fihi ma'i ghayri taraktuhu wa shirkuhu nee na suñu borom subhanahu wa taala mi ngi wax ci hadisul ne man day képp kuñ may bokkaaleel dara rek na xam ne man maa ko gën a oomal te man du bokk kenn dara képp koo xam ne jëf nga jëf ba pare di jël benn euh, doomu aadama ba di ko bokkaale ak man ci jëf ja nga xam ne moom nga jëf mu mel ni danga koo jëf ba pare di ko ngisal doomu aadama yi wala nga bëgg ñu la ci tàgg wala nga bëgg ñu la ci yëkkati suñu borom subhanahu wa taala nee na man jëf jooju suur naa ko këll doyal naa ci sëkk aw ma ci senn soxla te saa boo ñëwee ëllëg yowmal xiyaam taxaw ngir bëgg ma fay la jëf jooje ma delloo la ca ka nga xam ne moo taxoon ngay jëf jëf joojee kon loolu itam doon euh, jikko boo xam ne euh, jullit bi war na koo waaye doon jikko boo xam ne jullit bi war naa euh, fóot xolam ci jikko jooju ba lépp loo xam ne moom lay def mu koy def ci ak sellal rek tax waaye mu fexe ba sellal ab xolam ba du ca dugal leen ngisal ñetteel ba mooy rëy rëy nag buñ ko waxee mooy lan mooy euh, nëbb dëgg ak suul nit ñi di yëkkati sa bopp ci kaw nit ñi loolu mooy rëy doon jikko bu bon boo xam ne suñu borom subhanahu wa taala rek moom moo ko war a mu doon tedd nga ci moom suñu borom subhanahu wa taala rek moom moo ko war a ndamoo moom rek moom war a jikkowoo jikko boobu waaye ab jullit wala doomu aadama moom jikko boobu du jikkoom teyit it euh, moomu ko du mbubbam su ko solee daf koy ëpp moo tax daf ko war a bàyyeeg suñu borom mi nga xam ne moo ko moom euh, nit ki nag saabura bu li nga xam ne mooy dëgg du ko nungu te saa bu rëyee itam day bëgg di yëkkati boppam ci kaw nit ñi day bëgg ñëpp féete ko suuf day bëgg Euh, day bëgg fépp foo xam ne fa la nekk rek baatam moo fay jib te loolu suñu borom subhanahu wa taala rek moom mooy ki nga xam ne moo ko moom moo tax muy wax ci alquran ne innahu la yuhibbul mustakbirin moom suñu borom subhanahu wa taala bëggut ñi nga xam ne dañuy rëy rëylu moom suñu borom subhanahu wa taala bëggut jaam ñi nga xam ne dañuy rëy rëylu kon jaam bi lan moo ko war mooy dafa war di toroxlu waaye dafa war di wàcce boppam euh, xam ne euh, am bindeef rek la ab jaamab yàlla rek la Euh, mënta wax ba euh, euh, yilif nit ñi waaye it mënta wax ba rëy rëylu wala muy yëkkatiku ci kaw suuf si di màgg-màgglu ba mën a ëpp daraja li nga xam ne moom la suñu borom subhanahu wa taala bind ci kaw suuf yonente bi di wax ci xadis ne yaqulu llahu taala al kibriyaau ridaa'i wal azamatu izaari faman nazaani waxidan minhuma alqaytuhu fi jahannama wala ubali wa ayasu billah yonente bi saa sallam wax na ne suñu borom subhanahu wa taala mi ngi wax ci hadisul qudsi ba tey ne euh, rëy sama mbalaan la rëy sama mbalaan la màgg itam sama euh, kiiraay la képp koo xam ne ñaar yooyu xëccoo ko ak man nee na moom suñu borom subhanahu wa mooy wax nee na dinaa la sànni ca sawara jahannama te du ma yëg ne sax def naa ko kon ñaari jikko yooyu ay jikko la yoo xam ne nit ki war na koo moytandiku bu baax a baax waaye war naa fexe ba bu mu ko jikkowoo ndax jikko la ay melo la yoo xam ne suñu borom subhanahu wa rek moo ko melowoo te moom rek moo ko jagoo muy rëy ak màgg ñaari jikko la yoo xam ne yàlla ne na képp koo xam ne bépp mbindeef boo xam ne jiim nga koo xëccoo ak man yàlla ne na dinaa la sànni ci sawaraas jahannama te duma yëg ne sax loolu def naa ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam di waxaat ci beneen xadis ne laa yadxulul jannata man kaana fi qalbihi misqaalu zarratin min kibr du dugg àjjana képp koo xam ne sab xol lu toll ni fépp zarra maanaam lu toll ni fépp suuf mi ngi ci ci ak yow kooku na xam ne àjjana moom du ko dugg te xetuk euh, àjjana du ko xeeñ kon su fekkee ne bëgg nga bokk te ña nga xam ne ëllëg ñooy texe ëllëg ña nga xam ne ñoom la suñu borom subhanahu wa taala di defal ak texe nee naa na nga moytandiku jikko jooju muy muy rëy ñeenteel ba mooy alxeqdu alxeqdu nag moo di ak ak mbañeel ak mbañeel goo xam ne ak noono moo koy andi waaye bañ nit ki ak bëgg fayantoo ak nit ki te loolu itam ci feebari xol la bokk ba tey mu mel ni moom ak euh, euh, soxor sorewuñu waaye xeqd da gën a xóot kon yooyu yëpp ñeenti jikko yoo xam ne jikko yu yoo xam ne benn boo xam ne ab jullit war na ko jikkowoo Euh, amu ci yépp la ab jullit war moytu waaye yépp la ab jullit war a fóot ci ab xolam ba du ca tàbbi benn yoon moo tax sëriñ bi wax foofu ne wajtani bil xasada war riyaa na nga moytandiku soxot ak ngistal wal kibra ak rëy wal xeqda akum bañeel taxus kon da nga an ak leer mu ne ama riyaa u ndaal ngistal fa huwa moom bokkaale la asxaru bu ndaw saaxibuhu boroom musaxarun ku ñuy toroxal la fi abadin ba faw ne na nga ngistal de na xam ne mooy bokkaale bu ndaw li ñuy wax bokkaale bu ndaw ne na ngistal moom moo ko doon ngistal bokkaale bu ndaw la asirqul asxar mooy bokkaale bu ndaw Euh, nee na képp koo xam ne nag ko na nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala dana la toroxal ba faw kon jikko la joo xam ne baaxut te jikko la joo xam ne itam euh, jullit bu ne war naa moytani ko euh, koo jikkowoo moom ngistal kon dañuy taxawlu foofu di tuub bu baax te jégglu di wax ne in uridu ila al islah ma stataatu wa ma tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu